alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wasalaatu wasalaamu ala man la naala min almawahibi aljalila alaha wa alaha wa faaqa min al ajnas zakaraha wa unsaha wa sumiya inda allahi bi muhammadin wa yaasin wa taha salawaatuhu wa salaamuhu ala sayyidil bashar sayyidina muhammadin alayhi salaatu wa salaam wa ala alihi wa asxaabihi al-ghurril mayaamiin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi diin amma ba'du ayyuhal mushaahiduuna al-kiraam fi télévision sunu Label TV nuhayyikum bi tahiyyati l-islaam tahiyatan mubaarakatan min indillaahi tayyiba wa yaa salaamu aleykum wa rahmatullaahi ta'aalaa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 yal na ko yàlla bokk defal nun ñëpp àdduna ak laaxira ci barke sayyidul wujudi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal kilifa diine yi yàlla dëgëral leen ñaanal wayjur yi nga xam noonu bokk njaboote yàlla bàyyi leen fi nu yàgg fi lool te barkeelal leen njaboot gi biir ak biti bi jaayi sayyidul wujudi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal kilifa yi nga xam ñoo ngànk liggéey bi ko tàmbalee ci directeur ba ba ci ki mujjee yegg si yëpp yal na yàlla defal leen tawfiq biir ak bi jaayi sayyidul nuyu sunu jigéen di sunu lépp macha allah yaa Aida Fall ñaan sunu borom yàlla na yàlla dëgëral ko sàmm ko aar ko moom ak borom këram bi jaay seydil wujudi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bu ko defee ni ngeen ko miine ci seen émission jilsatu nabi di jataayu seyduna muhammad wi sallallahu alayhi wa sallam ci seen weer wu tedd wi nga xam ni mooy weer wi ñu sunu borom jagleel ñun jaam ñi nga xam ni dañu bëgg dem aljanna eh, ni ma koy waxee rek bis baa ngoog nañu ca yàlla bu kenn def luñ lay jéppee di la wàcce yàlla bu ca kenn def luñ lay jéppee di la wàcce ku ca def safaan yàlla na la yàlla baal te bokkunu nu ànd ak ñun yóbbu nu ba ñu tàbbi aljana dara bañ a ñaaw ci barke mustafaa sallallahu alayhi wa sallam naa ko démb mbokk yi ma ne leen weer wi dafa am yu mu làmboo eh, bokk na ca ya weer wa làmboo mooy wa min xukmi siyaami su ma doon atte weeru koorit weeru lan la Moussa damay wax weer wi sababul taqwa weer la wuy sabab buy may nit mu jaare ci am ragal yàlla waaw waxoon naa démb ne weer wi mooy may mu dem jege boroomam ci bàyyi muy bàyyi li bakkan bëgg waaye nag weer wi it mooy nit mu am résultat ragal yàlla yaayu la dina amunu alquran suñu boroom a wax ci suratu baqara ni ñu siiwee aaya woowu ci ci ci weer wi ñëpp siiwee nañ aaya boobu waaw Musaa aaya bi moom ñëpp ko miin ci weer wi kutiba alaykumu siyaam kama kutiba xam nga ba ne woon na kutiba alaykumu yàlla faraatal na ci boobu siyaam ma ne ko déet <laughs> déet nga yow sa lépp danga koo yóbbu ci ceeb ma ne ko firiwul loolu yàlla farataal na ci seen kaw woor la <laughs> waaw aaya boobu ñun miin nañ ko waaye kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum nañu déglu résultat bi laallakum tattaquun sunu borom ne dama farataal ci yéen koor kon ni ma ko joxe woon ñi fi jiitu woon Moussa xam nga koor du ñun ñoo ko njëkke yonentu bu ne bi nga fi jaaree dañ doon woor dañ la farataaloon koor ak sa ak sa ak sa njaboot gi nga àndaloon xatta Muhammad bi muy ñëw ci weeru koor gi am na weneen koor bu mu daan woor mooy koor go xam ni beneen yonent moo ko yoroon moom boobu la doon roy koor googu kooru guddeeg bëccëg la woon ah boobu dañ daan koor guddi koor bëccëg mooy dañuy woor ba timis ñu dog bu geewee ñu tàmbali waat woor koor nii la woon de lii saxaabatul kiram woore nañ ni yonent bi woor na lii koor gi woor na ko laata kooram bii di ñëw nii bii façon ni ñuy woore laata moo ñëw kooru guddeeg bëccëg bi la daan woor waaye lan la ko dindi <laughs> euh, xam nga nee naa nag buñ ko delloo woon ah waaw bu njëkk façon koor gu amoon na su nga yonent yàlla Isa ndayam bi koy wasin gisoo yàlla jamono boobu kooru noppi dafa amoon kooru noppi Moussa jamono boobu koor ku ko yàlla farataal noppi ngay def ngay noppi ay waxtu soo paree nga dog mooy nga wax mo tax gisoo Mariama bi mu ëmbee Isa ci ëmbin wu doy waar woowu ñu tuumaal ko yàlla de ko ne koo ci dajeel ci ñoom suy wax ne ko inni nazartu lirahmani sawman falan ukallima al yawma insiya déggo tey dama fas yéenee woor wooru wax wooru noppi tey dama fas yéenee koor kooru noppi loolu la ko yàlla da ko ne waxal lool neel tey da woor wooru noppi kon ndekete kooru noppi amoon na mas naa di waxtaan nag benn waaye ne ma si boobu de mu waroon a delsi rek benn yoon Eh, boobu moo gën noppale de ma ne ko billaay lool nga wax waaye billaay bu ñëwoon du noppale di nga dégg ko dog rawatina fii réew mi toll nga xam dañuy wax rek <laughs> ah, Sénégal nga wax rek nit ñi dañuy yeewa di wax ba ngoon ah, li ñuy wax dara nag lañ ca xamul da ngay gis koo am day wax di wax nga laaj ko léegi mu pare na la man wax dëgg yàlla xaw ma woon lu may wax <laughs> ah kooku boo ko andiloon kooru noppi billaay day dog li muy juubu mooy bari <laughs> ah, am na ñu mun ñu noppi dafa ñu mënul noppi. Ah, kon ñi mënul noppi nu ñuy def kon kon kooru noppi amoon na kooru guddeeg bëccëg amoon na <laughs> saxaaba yi eh, dañ daan woor guddeeg bëccëg ndekete am na ci ñoo xam ni bu nu wooree guddi dañuy dem soxna si mel noonu rek tabar fa kallaa nga lele léeg boo tëddee guddi ah, ñu jaxasoo ak soxna ya ah, te bokk na ci koor ba a joxasoo ak soxna waaye yàlla xëy nag wax ko Muhammad ne ko am na ñoo xam ni dama waxoon nañuy wóor guddeeg bëccëg mais nee leen ñoom wóoruñu guddi de ñu ngi dog yonent bi ne ah, am na ñuy dog guddi de yonent bi toog ci masjidu rasul jumaa ji fees deb mu ne dafa am aaya bu iblis bu jibril andi léegi dama dafa mel ne am nañu bakkan mëne ci guddi koor yi ba ñoom daa mel ni wóoruñu guddi de Moussa jumaa ji de selaw Omar bun Xattaab ne ñokket ne man dal na ma keroog da ñibbi naa ñëw fekk soxna si mel ci guddi gi noo xam ni sama xel ne na ca moom ma joxosoog moom mbaa du yàlla man lay waxal waaye xam nga Omar bun Xattaab ñëpp dañ ko xawoon ragal euh, ndekete jumaa ji ñëpp ñëpp ñëpp li Omar def def nañ ko mais kenn ñëmul woon wax parce que Omar nga ragaloon <laughs> Omar daa wax ak man gën a commencé ak man ak man ak man gi jumaa ji yëpp Moussa ak man ak man yàlla na ne léegi nag fal aana bashiruhunna <laughs> léegi may naa leen ko bu guddi jotatee amul problème mën ngeen a jaxasoog soxna yi mën ngeen a lekk mën ngeen a naan may naa leen ko parce que xam naa mënoo leen ko tenir mbokk yi yàlla borom yërmande la ci sunu kaw maa yuridu llahu bikumul usra yàlla bëggul dara lu jafeñ suñu kaw walakin yuridu bikumul yusra yàlla nu mu gën a jàppandee ci rek joxe nañ ko noonu moo tax mu ne man mi farataal bu leen lekk bu leen naan ba ngoon xam naa li tax ma wax ko te xam naa ni mën ngeen ko moo tax gis nga Moussa xel mooy woor xel xel am na ko am jàpp na ni mënul koor non xel rek la xel mi la utiliser rek mais xel mooy woor yàlla ne man xam naa ni am ngeen capacité koor ba ngoon xam naa ko moo tax ma bàyyil leen ba ngoon ba ma xamee ne koor guddeeg bëccëg du ngeen ko mën dama dindi guddi kon jamu yàlla la woo xam ni moo lay may nga dem ci ragal yàlla moo tax suñu borom ne kama kutiba ala alladina min qablikum ñi leen fi jiitu woon ni ma fara farataaleen woon ci ñoom koor noonu laa farataalee ci yéen mais bokkoo leen nag seen bos ak bosu ñooñu bokkul ñu ne ko yàlla luy différence bi mu ne yéen seen bos dafa am résultat bu muy génne mooy ku ko def ci weer wi soo ko daanelee ragal yàlla soo koy daaneel di ragal yàlla mais kon Moussa est-ce que ñu ngi woor loolu war a doon question bi kon waaw est-ce que ñu ngi woor mbokk yi ndax fa inna saaima mamurun bi fili taati wa tinaabul maasi gis nga boo xoolee ci koor ci ngay demee ba dootoo mën a def lu bon mais bu koor defee effet moo tax ma waxoon la fi ne yonent bi ne woon na yàlla nee na ku bàyyiwul lu bon bàyyiwoo wax ju ñaaw mën nga dog te bañ a woor parce que sa koor gi ñoru ko koor ba pare teeru laa yendu ci ci wax ju bon woor ba pare tere terewulaa yendu ci jëf ju bon mu ne mais looy woore moo tax na ci xadis ni rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi illa al juu wal bari na koo ngeen seen mu yor socc bu fu mu romb tifli fa ñu naan daa woore yonent bi woorul dara daa ñàkk a lekk naan loolu kay la am mais amul koor ah parce que ñàkk lekk ñàkk nan nga def ah koor goo xam yaa ngi yendu ci sa téléphone yor deru nit rek lu ñaaw loo xam yàq nga ko ci téléphone di nit lu ñaaw loo xam jëwee nga ko diw te yor sa téléphone nekk ci weeru koor te yàlla na bàyyi leen deru jàmbur yi nga woor tëdd sa néeg ne man lekkuma naanuma ah tëdd sa néeg ventilo du la ëpp mbaa clim nga yor sa téléphone ah nekk ci deru nit rek te ko bàyyi te yàlla ne nekk ci deru nit lekk médd sax ko gën waaw kon kay yow sa koor gi anamu waaw bu ma ko toppee nag mbokk yi mu bëri koor goo xam tere wala bàyyi fen waaw waxal nax ko waaw goo xam ni tere wala bàyyi rambaaj ñaar ñu jaxasoo yaa leen jaxase famille bi bu tasee yow la ci te ci weeru koor wi nga ko tas am na ñoom ci weeru koor wi lañu tas famille bi billaay Moussa wax na dëgg am na ci weeru koor wi la ñuy tas famille bi ci maanaam am na ñoo xam Moussa suukaru koor sax xanaa day tas famille suukaru koor suukaru koor yi ñuy joxante léeg-léeg mu tas am kër mu tax mbokk yi bëggoon naa ñu xam lan mooy objectif weer wi lan la ko yàlla joxe pour lan la mais dañ ci war a jaare jubu ñi tàqali ko woon dañoo war a ànd ci la ñu war a as jaaree ànd mais du weer wu ñu ñëw di tàqale nit ñi kay ah, am na koo xam ni suukaru koor bi diw andi moom lay waxtaane pour xas keneen ki andi suukaru koor beneen façon mbaa andiwul mbokk yi du noonu de weer wi du pour du pour loolu weer wi dafa ñëwoon pour defar sunu melokaan yi weer wi dafa ñëw pour fexe ba lu ma daan métti dootuma métti weer wi dafa ñëw pour fexe ba ku ma xulooloon ma jubóog moom weer wi dafa ñëw pour fexe ku ma jéppi woon dootuma la jéppi weer wi dafa ñëw pour defar dafa ñëw pour defar dafa ñëw pour defar mu ne kon ci loolu la ñuy jàngatee ni wa ida kaana saaimu mutalabbisan bi siyaami fa innahu kullama hamma bi masiyatin tadkaru annahu saaimun mu ne ci nga jàngatee ni ki woor heure bu nekkee ci koor boo de bëggee bu koor gi nangoo soo ko bëggee def looloo xam ne bàkkaar la mënoo fexe ba mu def ko wa lizalika amara nabiyu sallallahu alayhi looloo waral sax yonent bi digle woon ni assaimu an yaqula liman saaba liman saabahu aw shaatamahu inni saimun mu ne looloo andi yàlla waxoon ni yonent bi digal ñu ne ku woor sax Musaa boo dajeeg mu saaga la nan ngay def yonent bi dama conseil leen ni ngeen di def ma dajeeg nit mu jànni ma dajeeg nit ci bërëbu liggéeyukaay mu def lu ma neexul yonent bi ne déglul ma conseil la nooy def ak moom ci weeru koor bi nga ne ko noo koy def yonent bi ne nga naan ko man dama woor non munoo fexe ba mu xuloo munoo fexe ba ma wax lu ñaaw kon amul problème defal lu la neex mbokk yi lii de mooy conseil Seydina Muhammad ci nan la war a dundee ci weeru tedd bi kon weer la wuy changé waat sunuy jikko defaraat ko ba mën naa ne weer wi nag mbokk yi mooy sàmm jikko yi waaw weer wi nag <laughs> waaw weer wi nag mooy sàmm jikko yi nekkati ñun li ñu doon yëpp nekkati du sàmm jikko yi weer wi mbokk yi mooy sàmm jikko yi parce que mooy fexe ba nit defar sa melokaan ba li nga daawul def ci mbaax nga koy def waaye la nga daan def ci bon nga bàyyi ko kon weer wi moo mën a sàmm jikko yi yal na yàlla bokk nu sàmmal sunuy jikko bi jaayi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam barke weer wu tedd wi su ko defee mbokk yi ma teg foofu sama baaraam ndax wi dab na ma la ci waxtu jeex na tàkk ko waaye mën ak yéen ni ma koy waxee rek incha allah dañuy àndaat bu suba ci seen émission ji na bi di jataayu Seydina Muhammad bi fii ci seen télévision bi nga xam ni moom ngeen taamu te mu nekk ci xolu jaami yàlla yi di sunu Label TV ñaan sunu borom kilifa yi yal na yàlla dëgëral leen waaye dëgëral mboolem koo xam ni yaa ngi béggee télévision bi waaye ñaanal it ñi fiy liggéey yàlla dooleel leen biir ak biti mboolem kuy béggee télévision bi yal na la. ba nga yëg ko ci biir ak ci biti bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam iza aradtum salaamatal ardi fattabi'u muhammadan wa arihu hayatal umami mbokk assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu